bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala wa sahbihi wa man wala asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi ñi ngi dimbandikoo suñu boroom tabaraka wa taala fas yéene dellusiwaat ci suñu jataayu tafsir tey ñu war a ànd ak yéen ci aaya 63 ci suuratu ali imran borom bi tabaraka wa taala di wax ne baada audu billahi min alshaytaani arrajim qul yaa ahla alkitaabi tacaalaw ila kalimatin sawaain baynana wa baynakum ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون kon tey aay bii mooy suñu bindub tey ñu war a ànd ak tafsirub Cheikh Abdourahman As-Sa'di rahimahullahu taala rahmatan waasi'a borom bi tabaraka wa taala nee na xul waxal yorante bi sallallahu alayhi wa la suñ borom di waxal ne ko waxal waaye nag bépp daa yi da ciy dugg képp koo xam ne dafay jot li diine ji daf ciy dugg xul waxal yow yorante bi ñan ngay waxal ahlul kitaab muy yahudi ak nasraan yi waaye ak képp koo xam ne ma ngay jaamu lu dul yàlla dafay dugg ci biir qul yaa ahlal kitaabi yéen ahlul kitaab ahlul kitaab ko waxee mooy képp koo xam ne téere mas naa wàcc ci yow ba nga amoon diine ju wér am yonente bu ñu yónni woon ci yow ginnaaw gi nag ñu yónni yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu folli mboolem diine jooja nga xam ne léegi diine rek mooy wér waaye ña amoon ay diine bu wér ñooñu lañuy ñuy tudde al ahlul kitaab ñooñu nag ñi ci gën a siiw gën cee fes mooy yahudi ak nasaraan yi waaye nag kitaab bii képp kuy jaama leneen ci la bokk kiy jaamu jant bi moom la waxal kiy jaamu weer ba tey moom lañuy waxal waaye tamit ki jaamu ay nit moom lañuy waxal kiy jaamu ay malaaka moom la ñuy waxal kii jaamu sawara moom lañuy waxal bàyyiwuñ kenn suñ boroom na ko xul waxal lan ngay wax yaa ahlul kitaab yéen ñi nga xam ne yéenay ahlul kitaab taalaw kaay leen da leen a woo kaay leen ci lan nga leen woo ila kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum ci benn baat boo xam ne nun ak yéen noo ci yam ilaa kalimatin ci baat boo xam ne sawaa in day way yamoo bay na naa suñ diggante wa baynakum ak seen diggante yéen ñi may woo ñun ñëpp ci bokk yam maanaam gën a lante du ci am baat bi du ma ci am cër comme ni nga xam ne yéen itam du ngeen ci am cër suñuy maam duñ ci am cër suñuy baay duñ ci am cër yéen itam seen baay seen maam duñ ci am cër benn baat la boo xam ne ñun ñëpp ñoo ci bokk yam taalaw kaay leen yéen ahlul kitaab ilaa kalimatin jëm ci baat boo xam ne sawaa im baynana wa baynakum nun ak yéen noo ci yem kepp noo ci tolloole li nu war ci baat bi moo leen ci war liñ ci am moom ngeen ci am kenn du ci ëppale sa moroom sawaa in baynana wa baynakum mooy baat bi nga xam ne mboolem yonente yi fi masoon a jaar ci loolu lañ doon woote mooy ban ban baat muy baatu tawxiid mboolem yorante yi fi mas a jaar ñëpp yàlla yónni leen ñëw di woote baat boobu ci lañ mas di woote kenn mësutee woote ak ñoom lu may ñi nga xam ne dañoo dëng dañoo féttéerlu waaye dañoo sànku kon taalaw ila kalimatin sawaa'in bay wa baynakum amut loo xam ne baat bi ñëwee ñun dañ ko ciy jagoo walla kenn ci noonu daf koy jagoo keneen ka du ci bokk wala ma ci am ab cër boo xam ne moom moo koy moom te moroom ma du ko ci am dëgg dëgg nag wax ji wax la joo xam ne wax ju maandu la ci boo ko settantalee ndax nit ki bu la dee woo ci mbir te mbir mi mu lay woo moom amu ci cër boo ci amut waaye toggu ci lum ci toggul boppam yéen ci bokk yam képp wax ju maandoo ngi nii waaye woote bu maandoo ngi nii woote boo xam ne kenn du ci ëppale kenn ñépp ci bokk yam woote bi nag lan la mu ne leen allaa naabuda illa allaha dun jaamu dara dara dara dara lu dul yàlla loolu mooy baat leen di woo allaa naabuda nu bañ a jaamu daf ko xasr illa allaha ndere yàlla dong leneen du ci bokkati waaye nag dafa fetliwaat loolu ndax biñ jaamoo yàlla kese kese loolu bokkaale munu faa dugg waaye tiwit mu fetliwaat ko daal di ne bi nushrika bihi shay'an te duñ ko boole ak dara yàlla mi ñuy jaamu duñ ci dolli dara dañ koy wéetal ci jaamu giñ koy jaamu sopp giñ ko war a sopp dañ ko koy sopp moom dong duñ ci boole keneen ragal giñ ko war a ragal dañ ko koy ragal moom dong duñ ko boole keneen yaakaar gi ko war a yaakaar moom yàlla dañ ko koy yaakaar moom dong duñ ci boole keneen wala nushriku bihi nabiyan wala malakan wala waliyan wala sanaman wala wasanan duñ ci boole ab yonent duñ ci boole malaaka duñ ci boole waliyu duñ ci boole xërëm duñ ci boole dara la ñuy jaamu duñ ci boole mbindeef duñ ci boole euh, bayima wala jamaat ay xeer yu ñuy yett wala bant wala lu mën a doon duñ ci boole jant wala weer wala dara wala nushrika bihi nabiyan wala malakan wala waliyan wala sanaman wala wasanan wala xayawaanan wala jamaadan tafsir Cheikh Abdurahman As-Saadi duñ ci boole dara yàlla kese lañuy ñuy jaamu wala yattaxida baaduna baadan arbaaban min dunillah duñ fekk ci suñ biir ñuy jël ñenn ñi di def leen ay yàlla ci kaw ña ca des jël ñenn ñi def leen ay yàlla di leen jaamu di leen yaakaar di leen ragal bañ koo def ña ca des loola duñ ko def wala yattaxisa duñ jàpp wala yattaxisa duñu def baaduna lenn ci ñoo koy def baadan la ca des arbaaba ñu di ay buur mu min duunillaahi ci dudul yàlla topp gi ñu topp daal lépp yàllaa ko yonenteem képp lañuy topp maanaam yàlla képp lañuy jaamu waaye yonente bi ñu ngi koy topp ci mu jàngal ñu naka la ñuy jaamoo yàlla kon amatul keneen ku ñuy topp wala ku ñuy jaamu ab yonente sax dis ko jaamu waaye dañuy déglu lam ñu wax jële ko ci boroomam ñu di ko def di ko jaamoo yàlla yàlla képp képp képp la jaamu di topp yonente bi ci lim nu wax nanu moom lañ war a jaamoo yàlla duñ topp benn mbindeef ci loo xam ne ak mooy yàlla la ndax kat loolu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam sax daf ko tere laa taa'ata li maxluqin fi ma'siyatil xaaliq yeyut yellut jaaduwut ñu topp benn mbindeef ci loo xam ne loola ak mooy yàlla la su boobaa bu ñu ko defee dañuy jël palaasub yàlla di ko jox mbindeef fi te loolu jaaduwut kon woote ngi nii boo xam ne bu maandoo maandu la ñépp lañ ci yemale léegi nag boroom bi ne ko fa in law su fekkee ne woo ngi leen ci woo wuy si nañ la baax na waaye bu ñu dëddoon nag muñ laa wuy si nag fa quulu bi anna muslimun da leen wax ne leen ah, seede leen ne ñun de ñun lii ñu leen di woo ñun wammat nañ ci loolu fa in tawallaw fa qulu shahadu bi anna muslimun kon ki nga xam ne dañ koy woo ci jaamu yàlla di ko woo ci wéetal yàlla jaamu ko moom dong bañ koo booleeg dara muy baat boo xam ne man mi la ciy woo ak yow mi ma ci woo noo ci bokk yam yonante bi ciy woote ak ñim ciy woo ñoo ci bokk yam amul kenn ku ci ëpp ëpp ëpplee moroom dara ñi ngay woo buñ la wuysee seen njariñ la seen intérêt la ndax lan ndax buñ la wuysee ñoom dañuy mucc àdduna ak alaaxira waaye buñ la ñàkkee wuysi nag yow ne leen man dey gannaaw wuysiwu leen ma fa in tawallaw bu ngeen dëddoo fa qulu ashhadu bi anna muslimun nga xamal leen ne leen day man moom maa ngi bokk ci way wamatu yi Cheikh Abdoulaye Asiydi fii dafa wax ne xëy na suñ boroom li tax mu wax lii yonente bi sallallahu alayhi ne ko wax leen ne leen fa in tawallaw fa qulu shahadu bi anna muslimun mooy su fekkente ne ñoom ñëw nañ te mooy ñi ñu doon woo te mooy boroom xam-xam yi ahlul kitab xam nga ne amoon téere lañu su fekkente ne ñooñu wuysi nañu ñooñu ñooy boroom xam yi ñàkk wuysi ñeneen dootu leen lor su fekkente ne ñi war a si woote bi te mooy kilifa yi ak boroom xam-xam yi si nañ ko su boobaa li gën a bari sax mooy awaam dañ leen di topp si waaye nag su boobaa ku leen topp siwul ci awaam sa bopp rek ngay lor waaye su boobaa moom tuddee daxaw bee jàll ndax woo borom xam-xam ba ñëw waxin la boo demee ci suuratu lisra ca mujj ga borom baa ngi wax naan bi aaminu bihi aw laa tu'minu gëm leen lii ñu leen di woo wala nga ñàkk goo gëm inna alladina utul ilma min qablihi ñi nga xam ne day ñoom joxoon nañ leen xam ci li jiitu li di wàcc ñoom day isa yutla alayhim bu ñu leen jàngalee alquran ji yaxiruuna lil azqaani sujjadan dañuy rot di sujoot ngir borom bi tabaraka wa taala isa yutla alayhim yaxiruuna lil azqaani sujjadan wa yaquluuna subhaana rabbina ña ngay sabbal seen borom di wax naan in kaana waadu rabbina la mafulan kon ahlul kitaab bu ñu leen woo ci woote boo xam ne ki ci woo ak ñoom ñiñ ci woo ñoo ci bokk yam nañ wuy si mu nekk seen njariñ bu fekkente ne boroom xam-xam yi wuy si nañ la gën a bari mooy awaam bi dañuy ñëw waaye su awaam bi ñëwul tamit fekk borom xam-xam yi ñëw ba tey baax na kon loolu moo doon suñ bindub tey muy aaye boo xam ne aaye boo ama am solo la buñ ko seetantalee njariñ yu bare ci nekk ndax xam ngeen ne bu xoolee suñ jamonoy tey jii woote yu baree bari tur yàlla lañ ciy tudd wax ne yàlla lañuy wooteel waaye boo demee ba ci biir da nga gis ne ñu bari ci seen bopp lañuy woote ñii di woote ci seen i baay ñii di woote ci seeni maam ñii di woote ci seen i yi bopp woote bi islaam nag benn intérêt waru caa am ñeel kii woote waaye lépp daa war dellu ci yàlla ñëpp dañoo war a woote ci yàlla woote ca baat boo xam ne kay ak kañ ci ñoo ci bokk yam qul laa asalukum alayhi ajran in ajriya illaa woote bii ma leen di wookat laaju ma ci benn nag fay yàlla sunu borom moom moo may fay yonent yëpp alayhim salaatu wasalaam nii lañ daan wootee woote boo xam ne séntuwuñ ci benn intérêt ci ki ñuy woo waaye ñoom ñi lay woo ak yow mi ñuy woo yéen ci bokk yam kon ñu ngi ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu defal ñu dégg ak topp ba ñu mën a dégg téeréem bii ba topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci lim doon woote bu ëllëgee ñu ànd ak moom ci jannatul firdaws hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain